kufuna ngalo wiwicikula tibuguma gambia desiganawo 24 november dañoo wecci nguur am nguur united democratic party si njiitali looya Daabo ak looya May Fati GMC ak PPP genn wàllu NCP yëpp ñëw nañ United Democratic Party fekk suñu léegi nag lu yeneen parti yi xaar ñëw leen ñu sànni looya Ousseynou Daabo mooy di right candidate te ñun United Democratic Party am nañ suñ programme boo xam ne suñ formé government incha allah mu noonu la ñoo doxee li ñoo njëkk a def mooy dinañ seet constitution di fi nekk fi mu nekk nii parce que su Ousainou Darboe gagné ñun dañ ko jox limite tam limite ñun xam ne ne Angleterre Amérique ñoom ñëpp tamit ñeenti at lañ am ñaari ñeenti at mu juróom-ñetti at waa ñun tam tamit juróomi at lañ am ñaari juróomi at mu fukki at looy Ousainou Darboe du ko passé su toogee fukki at dafa wàcca keneen toog ñun xam nañ ne pare nañ ba pare te dinañ form government incha allah am nañ li ñoo wax di little yellow book this little yellow book lépp loo xam ne nguuri United Democratic Party li ñoo doxee mu ngi si book bi le moto bi mooy justice peace and prosperity ku deful dara loi du la tegu jaama ji demoon looy Ousainou Darboe def koo delloosi ah, koom-koom bi yàqu woon looy Ousainou Darboe def koo delloosi ñu de jaama ji fi nekko mu delloo si ko delloo si koom bi dara daaxul loolu fàttewul jigéen ñi nag suma mbokki jigéen ñi fàttewul ndaw yu góor yi ak ñu jigéen ñi li maa wax mooy na ngeen teel a jóg ngeen sànni seen karta yi loolaa am solo day nit ceeñ te dinañ ceeñ incha allah looy Ousainou Darboe la Dóoba la juddoo jàng na looya la Obama sa Amérique looya la Ablaye Wade sa eh, sa eh, Sénégal looya la njiit yi baax yëpp nga xam ne seen réew jaxasoowul ay looya lañ looya nag dina ragal loi parce que loolu la jànga te may fàtte mi ngi ko séqade looya la looy bu mag ak looy bu ndaw ñoo mun a ànd ak PPP ak ñeneen ñi bon nag bu leen des gannaaw maa ngi leen di ñaan dis li ci yellow book li si nekk am na solo waxtu mayewut pour ñu wax wax ko fi yëpp parce que amuñ jotam waaye suñ formé government lii la ñoo lii defar nañ suñu gouvernement ba pare lii mooy li ñoo doxee duñ dem di toog di dajaloo naan xamaguñ li ñoo def dañ pare ba pare parce que xam nañ ne incha allah comme 24 novembre wiiw daabo la ñoo dégga te suñ wiinee nag maa ngi leen di ñaan ngeen toog si seen kër yi suñ ne wiiw daabo toog leen seen kër yi oote leen oote bu rafet bu leen soxloo bu leen xeex soo leen ne wiiw daabo ngeen toog si seen kër yi soo leen toogee si seen kër yi su soo leen déggee looy seen daabo ne fellow Gambians soo leen neexee ngeen génn loolu laa leen ñaan wiiw daabo dina am ren parce que ku yàgga si teen baag fekkale si looya daabo yaru na am na xam-xam tey na man ba ma koo toppa ak jigéen ñi ma toppa ñëpp ñoom aji sukay naka ñëpp xam nañ ne looya Ousainou Darboe am na yërmande am na yërmande moo tax ñu di ko toppa looya Ousainou du toroxal kenn looya Ousainou Darboe du jànni kenn looya Ousainou Darboe si wax nit ñi du xool sa botam te la moo wax dina ko wax ak sago ak yar bon nag he is right candidate ñu sànni ko karta ñaan naa leen maa ngi ñaan jigéen ñu teel a jóg rek teel a sànni karta maa ngi leen di fàttali ne ku rang sa ut karta mun ngaa rang sànni karta jërë leen jëf wiiw daabo incha allah GRTS Digital FM on 98.6 and 102.6, the best FM station in town where you can capture hundreds and thousands of potential customers with a wider coverage around the country. Advertise today and get your targeted customers. For more information, call 9933263, 9957255 or 4497331 and 9906445. GRTS Digital FM. Chief, assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Moo You si, juga foo jógee si naaj bu tànga bi. Xanaa li bisu suba fruits moom wala ngay dox naaj bu tànga bi fruits moo fi jeex bu pop om ñëwee si dëkk bi ba léegi fruits ndax pop op di original fruits bineka nekk si biir saketam pop op am mango orange ak strawberry duma def dara lu dul ma may la nga toog ma am fu jaar ak yow waa sister yow li naka la neexee nii pop up ku man fruit bi maa wóor yëpp nekk mu bi pop up juice moom comme ma def rek ñeme ma si ma yóbbuwaale pour suma njaboot bi ak suma alaaji toogal baax naa bépp ba em waa suma pop up bi bokkaw ma ko kenn ba tey su ko bëggee nga dem ca boutique yi ya, wala supermarket ba wala ca marché te ku si bëgg a wholesale mun ngaa dem si numéro 21 Wellington Street Banjul ak pop up te lii yëpp daal nañ comme daw si aw ma toogaay maa ngi nii di daw uti pop up juice Assalamualaikum. Ha, bila? Ha. Kim mau nak sekila bukan ada sok. Ne? lii moom neex na ni. warkaal la di kan ci kër gi. waa Ndiaga. lii ko bëgg am. fan ngay Mamadou Diallo. number 17 William Street Banjul. Hmm? képp koo xamante